gis ngeen itam taxawaayam ci commission sociale bi monsieur Fouta jëf benn jëf yoo xam ne nii Cheikh Mamadou Moustapha jiitu wu ca waaye mënu ca gis ngeen bi ñuy tàmbali rek ñu tollee ci recensement bi yaakaar ndax Touba ca kanam lañ wax waaye nag jël nañ digal ci kilifa yi ñu sàkku ngir ñu boole ci lenn ci ay daara kaay yi yoo xam ne léegi ci dëgg kon programme yi ñuy def bëgg nañoo defar beneen boo xam waaye man dama koy dama koy daw ndax li koy daw mooy loo xam ne ñëpp dañ koy jàng soo tuddee ñu bàyyi bi day mel ne dëgg daa man dëgg tudd te fekk sax am na ko tudd koo xam ne bu man dëgg tudd loolu man mooy wax ñaar dama lim waaye bu ma nee suñu motuwaay social képp koo xam ne yaa ngi àgg seenu taxawaay ko àggal seen itte moo ko fa àgg kon yéen social yëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen jëloon di leen ñaanal yëngutu yi ngeen yëngu social yàlla na ko sëñ Tuubaa nangu te fulal leen ko te day jël jàppale ko fulal na soññee rek lay doon soññee gi nag day jëm ci ñun ñu seq liggéey bu Touba Ca Kanam ndax nan xam ne as doom dafay yëkkati kàddoom moom boppam waaye su xasee yëkkati kàddoom nag kon nañ bàyyi xel loolu baax baax ndax ñun ñooy yëkkati suñu kàddu ba àddina sépp dégg ñu woote ne dañoo am parce que ko waa te tubaab yi du yaatu tubaab yi du nag lépp doon fàggu na ko ba te ñaan na te yàlla defal ndax moom daa wax ne ruus naa ñaan yàlla duñ ko dul may lépp lu gis lu ngeen gis mu bind ko di ko ñaan teg ci la leen waaye kooku nag kon defal ko yomb na lool ndax day féete woo coono ba bàyyi la sax ba nga mel ne nag jaaroon lépp doonul daaw lépp lépp sëñ bi kon ñun ñi nga xam ne nag ñun ñoo jaay wax ne ko dañ koy defal mi ngi ñuy di ñu gis di ñu di ñu bàyyi suñ suñ suñ suñ yokk yëngu delluwul ginnaaw pas-pas bañ amee woon mu gën ñu kanam mu gën ñoo dimbali gën ñoo kanam te xam ne kat la mu taxoon a jóg ñaawal bi ñu gërëm lu am solo waaye bu ñu def rek ñu yokk nga xam ne li ñuy liggéey lu ko waaye liggéey bu fay dañu leen dafa fay jëlee ndax moom lépp lu am njëriñ ci àddina ak suñu ndaw kenn ku lool te lépp lu mu doon fàq moom ndaw la ñu yëg noonu ko doon fàq kon bu ñu wàññi ci yow kon nañ yokkaat pas-pas yokkaat itte yokkaat laxasaay yi fekk laxasaay yi gën am ko séeréer liggéey yu wàññi ñu bëri loolu ñu sant nag bu baax waaw fii ñu doxee waaye nag soññee dafa mën na ñàkk na si tawaat ak nii am na lu ne ñoo jaay suñu kilifa gii di sëñ Abibulahi Mbàkke ak mboolem waa commission ci kanam euh, mooy dañoo am liggéey boo xam ne dañ koo àndoon muy liggéey sëñ Touba ci li tax dëkk bi na ko sëriñ bi bëggee mu nga amee ko noona sa doom nag bokkoon ci eh, doonoon ci jàmbaar lool suñ borom bi nga xam ne mooy tege ab natt ndax li ñuy wax naan xamdoor moom bu dammoo ca waar wa wàcc na ci liggéeyal sëriñ bi da doon liggéeyal ba suñ boroom eh, def ab dogal fekk ko ca ba mu wuyu boromam ba loolu amee itam taxawaay yi nga xam ne Touba ca kanam waroon na koo def yëpp ci anam bi yëpp def na ko àggal na àggale na ko tamit ki nga xam ne moom lañ doon liggéeyal mu sëñ Tuubaa Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha moom tamit mu defoon ca jëf yi mu ca na ci sax yëkkati ay yéreem jox leen ko ne moo leen ko décoré mu mel na nag li wolof di wax naan kóllëre moom ginnaaw lay féete tey ji nag ñu ne woon nañ fi dell dellusiwaat doonte gisatuñ leen seen seen bët waaye da nga jàpp ne ñun ñi ñoo wuutu sa doom jooju demoon ak seen doom yooyu demoon moo waral ñu ñëwoon tey jii gis ne koor gi da ngeen ci yittewoo xéwal yu mel nii te moom bu fi nekkoon mooy taxawoo lépp moo mm-hmm. waral ñun ñëw fi nag ànd ak suñu kilifa gi ak mboolem commission sociale bi ak mboolem Touba ci kanam mm-hmm. indil la barkeelu yi ngir ngeen man koo jàpp ci koor gi mm-hmm. te jàpp ne rek eh, xëy na gisawutu leen ko ci bët waaye ñun fas nañ lépp loo xam ne daal moom moo leen ko waroon defal bu ko yëgee rek bu soob yàlla dañ ci def suñu kéem lay kàttan jërëjëf sant rek a sant leen bu baax itam ndax fàttewu leen jëmm ji fàttewu leen it dogal bi te ginnaaw dogal daa doxoon ba daan seen kaw mën ngeen ni ceel toog fa ngeen toog di liggéey sunu liggéey te ni ay donga lañ rek yu dee tool bi kooku amul benn solo te it loolu dong it waral na ci ndax pay gi ca ëllëg mm. moo ëpp lépp mm. ndax sëñ Moussa wax na ko ak say bi bu mii keroog ba mu koy wax ñëpp nga toog mun na sa xel dal dana la fay fii fay la fa jëm te loolee dara teggi koogut ndax yoon waa ngi nii ndax lii bu fi nekkoon it hmm. mënut genn wàll gi sax ba di ko def waaw ndogalu suñu borom a ci jaar te it sëñ Muntaxa mu nga xam ne nii ci ci moom la jaare daa am ànd ak bëti xol ak xelu xol ndax mbokkam la moo xam ne ni mu ko jege la ñoo bokk jenn deret maa ngi moom ñoo bokk jenn deret ba mu ko yëgee tam xol ba sedd na ci guy ba léegi it yokk na ci leneen loo xam ne sëñ Muntaxa ci boppam day yor bëti xol li ma la jox keneen yokk na ci koo xam ne kii ndeyam noo bokk benn baay mu dégg muy sikar mu woolu ko fa mu nekkoon ci résultat la nekkoon mu woolu ko fa ba mu ñëw mu sant ko yëkkati ay addi ay ay barkeelu jox ko yëkkati lu am solo jox ko te ne ko sa ndey fi yow fo fo foo bàyyi ko mu ne ko mbaakol de sama da sama yaay dëkk sëñ Cheikh Ndiaye mi doon daajal sëñ sëñ Abdoulaat ministre ba mooy saa baay mu ne ko yow de sa mbokk la yow de mbokk nga lool noonu ma ko waxoon la ko waxee te loolee ab xolam ma ko gis ba mu yóotu ji kooke di koy ni lépp nag nan ko sante suñu borom rek nan ko sante suñu borom ñu ñaanal rek ñaanal ñaanal jaxal ñaanal ñaanal rek dëgg sëñ Tuubaa